wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Omar Kane euh, li mu wax yépp mën nañ koo tënk ci ne Touba ca kanam moom min alxadimi ila alxadimi ma alxadimi kon dara génn ci sëriñ Touba bokk yi kon nag ni mu ko waxee léegi sëriñ Baara dafa wax ne jataay bi ñu ubbee ko ci kaamil kaamil boobu nag jàng nañ ko ba noppi mais xatm bi dañuy xaar bu sëñ yi ñëwee jàng xatmi bu ñu barkeloo ko ci ñaanal suñu way dawlu yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci liggéey bi te suñu boroom dogal ñu jiitu ñu fas ko ci te ñaanal leen ko insha allahu taala moo tax cheikhul xadim radiallahu anhu léppam alquranul karim la dafa waxoon ne ma saddani an kitaabillahi xaaliqina فقر ولا درر صدا لست تهما ما صدني عنه أشياء تعد إلى سبع رذائل صدت كل من هرما ذنب وكبر وإصرار على لعب حب لدنيا اعتماد للورى نهما ضعف اليقين التي صد البرية عن توكل وابتداع بدع تركزه حتما bokk yi kàddu yooyu fi muy daanoo la alxaa sëriñ alxaaji tàkko Mbàkke moom Cheikh Mouhamadinil Fadal nekk nii di dugg si moom la sëñ Baara gàttandu noonu ngir indi ko dalal ko ci jataay bi waaw mi ngi noonu di saafonteeg bokk yi boroom xam-xamu mbusoobe ba dafa waxoon ne shuhuudu majlisu hasa sheykhi maa adabin fawsun wa xunmun wa xurbun duna tamwiir isa stabaxa alcibaadu kaana amaamahum wa fi madaxi xayri alxalqi xayda alawaabit lu ko waral yaquumu layaali yaquumu layaali raakian bacda sawmihi yusalli imaaman bilmalaa fi lmasaajid ñu feelu ko nag abuna abulmamuuni gaysu lmuridin radiyun habibun wafiyun qutubu sudaani labibun nasibun zahidun nadbun aarifun jawaadun mut'imu dayfil jifaani shumuushul huda abnaa'uhu kulluhum bihi hudaatu ru'aatu sunnati ibni al adnaan yamiini yamiinun lastu ahnisu haniisan la amri faridun misluhu lam yakun saani kon sëñ bi ñoo ngi lay dalal jàmm wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di ko tàmbalee ci sëriñ Mouhamadul Mountakha di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye noonu lañuy ñuy ziyaare bu baax sëriñam am di Modou Mbenda Fall ak mboolem njabootuk maam Cheikh Rahma Fall ak mbooleem cheikh sëriñ Touba yi di ziyaar bu baax alaaji sëriñ Takko Mbacké ibnu Cheikh Mamadul Fadal di ambassadeur bu Touba ca kanam nooru daaray ni waaye noonu lañuy ñuy bu baax sëriñ Abibulahi Mbacke ibnu Cheikh Mahmadul Fadal di jëwriñu liggéeyu Touba ca kanam ñu ziar bu baax sëriñ Abdoulaat Mbacke moom sëriñ Abibu jamono yi mu ngi ci diaspora bi ci continent bu Europe di fa def liggéey bu am am solo moom it ñu ngi koy ziar comme ni ñu koy defee nii rek noonu lay dajale taalibe yi soññu leen ci liggéey bi waaye di leen ci ñaax ñu ziar bu baax soxna Bintu Mbacke di jëwriñu soxna yi Touba ca kanam waaye di ziar bu baax a baax président Serigne Abdou fataay Guèye mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ci wàllu administration bi di ziar bu baax Serigne Bara Mbacké massification mi nga xam ne banqaas bi mu yor liggéey bi ñuy amal ci moom la nekk te moom moo koy taxawee mu joxal nu ziar boobu nag mbooleem ñi mu bokkal Touba ca kanam góor ak jigéen mag ak ndaw waaye joxal na ko mbooleem membre tubaa Touba ca kanam ak fu ñu mën a nekk noo ñaan ci ñoom jàmmi sunu borom ak barkeem ak yërmandeem yàlla nekk ci mboolem ñëpp ci barkeem Cheikhul Khadim muy asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi xam ngeen ne jataayu tey bi dafa bokk ci jataay yu am solo yoo xam ne dafay firndeel bàkk bi Touba ci kanam teg ci kanamam mooy laaj nit ñi lu ñu man waaye bu ñu noppee mu def ko fu ñu xam waaye tam ñi ko séq kenn ku ci nekk la ngay laaj di ko dajale bu at mi jeexee dañuy toogaat ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllu comptabilité bu Touba ca kanam ñenn ñu ci nekk la ñu jëloon la ñu ca versé ak la ca des ñu gaaral ko leeral ko ba kenn ku nekk xam ne eh, fii nga toll njëkk nag ñu ñëw ci loolu am na ay délégation yoo xam ne yegg si nañu ñu ci jukki aslëf jox leen kàddu gu ñu weel bu ci kanamee ñu dellu siwaat incha allah ànd ko ak yéen ba keroog rekk euh, liggéey bi di jeex euh, délégation bi njëkk a ñëw nag euh, soxna Toro Mbacké nekk Daaru Salaam ànd na ak mbooloo mu bari waaye délégation soxna Aida Ami nekk Touba Jeewal ak soxna Ami Guèye Touba Guyu Sew moom it teew na soxna Joor Jaw Touba Sarr Touba Sam moom tamit teew na soxna ma dégeen Diouf nekk Touba euh, Ndaam Okas moom tamit teew na Serigne Alaaji Fall euh, moom tam nekk Mbusoobe teew na soxna Ndey Jàlloo Touba Sam moom it délégation am teew na soxna Kumba Diop Sam Daaru Salaam moom it ak délégation teew na ak soxna Yacine Faye mi ngi ànd soxna Yacine Faye waaye soxna Aïda Cissé Touba Xaira moom tamit teew na ak délégation soxna Say Fall janatul janatu moom tamit teew na soxna Say Fall jannatu moom tamit teew na soxna maam Marème euh, Tawféex moom tamit teew na soxna soxna Ngura Diop Daaru Salaam Ndulo moom tamit teew na Soxna Xaar Jóob tubaa tubaa Njaxaay moom tamit teew na Soxna May Mbàkke Abdul Latif moom tamit teew na ak délégation Soxna Awa Lo garage moom tamit teew na Soxna Moomi Jo Moomi Dia moom tamit teew na ànd ak délégation soxna Aïda Dieng moom tamit ànd na ak délégation ñoom it teew nañ soxna Fatou Silla Touba soxna Fatou Silla euh, moom tamit teew na ak délégation xam naa kon dañuy tënkagun foofu jottuli kàddu gi bokk yi nga xam ne ñoo féete ci wàllu comptabilité bu Touba ca kanam nooru daare ni ñu tàmbali ñoom tam seenub liggéey kon ñun ñëpp ñu maase leen bismillah ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen siyaare di leen ndokkeel bu baax di leen jaajëfal di nuyu bu baax alxaaji sëriñ tàkko bi nga xam ne mi si jotaay bi di ambassadeur Touba ca kanam waaye di bàmbaru commission massification di ko siyaare baax a baax ak mbooleem kilifa yu baax yi mu dendal yëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen ndokkeel di nuyu mbooleem kilifa yu Touba kanam yëpp di nuyu bu baax mbooleem soxna yu baax yu sell yi nga xam ne ñoom la yàlla suñu boroom dogal ñu ngànk liggéey bi kanam bi xam naa dañuy njëkkalante ak waxtu wi nag ngir gën a fàttali ñëpp sababu jotaay bi jotaay la boo xam ne jotaayub soññante ci liggéey bi la ak fàttalante ak mbooloo mii liggéey fukki weer ak ñaar liggéey bu am am solo ci biir Touba jëme ko ci Touba ca kanam kilifay Touba ca kanam yi ci njiital sëriñ Abibu ak Alaaji sëriñ Tàkko am yéene ñëw saafoonte ak yéen ñaanalante ak yéen soññante ak yéen waaye nag ñu koy laytaay lu am solo te mooy mbooloo yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi jiite ay mbooloo di ñëw di jëflante ak Touba ca kanam te mooy di jël carnet route yi di ko dem di ko dajale di ko wersi ji su at mi jeexee ku nekk ak mbooloo mi ak ña nga jiitaloon dana baax waa Touba ca kanam leeral ku ne ñi daan ñëw ci ñoom di wersi li nga dugal ci at mi kon loolu mooy sababu jotaay bi loolu nag buñ koy def faaw nit ñi am ak teelu mbokk yi mbokk yi ngeen dégloo tuuti waaye ñu dégloo tuuti su ko defee ñu xam ne kon dañu jublu si waxtaan woowu ngir njëkkalante ak waxtu yi dafa nekk nag ñaari liste benn liste bi soxna Mati Dia moo koy lim li doon yéen ji mooy képp koo xam ne jële nga bolok si Touba Ca Kanam si at mi lang sa weer si ñu mën kaa tudd fii sa mbooloo dégg ko waaye kon na xam na lay ñëw sa bureau ba ëpp na juróomi téeméer nit juróomi téeméer nit tuddandoo ñëpp dina xaw a jafe waaye ni mu ko defee mooy li ko tàmbalee si fanweeri junni ba keroog ñuy yegg juróom benn fukki million juróom-ñaar fukki million képp koo xam ne weerte nga ko rek des na tudd sa tur fii kon foofu la waxtaan wi tàmbalee ñi ngi ñaan ñëpp nag am ak dilu ak teelu ñu teelu soxna maam Mati Ja mu ubbi liste boobu yi loolu nag mook soxna Fatou njaay ñoo koy def ndax xam ngeen ne mbooloo mii kat li ni bari bari soxna Fatou njaay mi ak soxna Mbène ak soxna Mamati ñoo la mbooloo mi ëpp li ni jonjol ndax ñoom lu bare bari bu ñëwee si bureau Touba Ca Kanam ñoom lañ fay fekk kon ñoo gën a yell ñoo gën a yey ci ñun daan jëflanteel buñ teewee seeni kilifa teew ñu jox leen kàddu gi ñu mën a lim li ñu war a lim kon ñëpp ñam ak diglu ñu teewlu soxna Mamati mu tàmmali liste bi lu gudd la nag waaye moom bu tàmmalee bu fi yeggee fekk timis fa lay xamdu bu fi yeggute bu ñu sëmmee timis mën a continué waat soxna Mamati bisimilah. léegi jukki alxuraan yi jukki alxuraan yi dafa am musimaan ki ñu indi ko fii si kanam. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un ardi wala sama wa huwa samiul alim bismillahi shi sha'ni asimi sultan sadidil burhan masha allahu kana wa man lam yakun may nuyu mbooloo mi ñépp kenn ku ne ci turam ak santam di nuyu suñ kilifa yu toog yépp di jéggalu tam kàddu yi ma yëkkatu sama kaw kay kilifa di leen ko tuubal bu baax baax a baax a baax tuuti naa ci lool waaye dama am ndigal pour reelal tuuti rekk luñ bokk ñun ñëpp ñun ñi nga xam ne ñoo safoo Touba ca kanam biñ démarré ba léegi te mbir mi yitteel leen lool may nuyu collecteurs yëpp bàyyiwuma kenn ci turam ak santam fas yéene tàmbale yéen ci ñi nga xam ne atu 2021 bi liñ ci liggéey kenn ku ne ci turam ak santam ñu démarré bismillah sëñ Mor Kane Touba Ilipor 150 000 soxna Bintu Silla Touba Guédé Bousso cent cinquante soxna Ngone Ndoy Daaru Manan cent cinquante mille soxna Bintu Bousso Touba Mosquée cent cinquante mille sëñ bëgg fàllu Daaru Manaan cent cinquante mille soxna Faat Bintu Lo Touba Ndam da cent cinquante mille sëñ Mamballa Mbacke Jannatul Firdawsi cent cinquante mille sëñ Mbaye Diop Mbusoobe cent cinquante mille sëñ Modou Fati Kane Touba Tan Daaru Tanzil cent cinquante mille sëñ Modou ak ñi àndal cent cinquante mille soxna Fati Diop ak ñi mu àndal cent cinquante mille soxna Fati Diop Daara Xudoo Kër Sëñ Kalsaan Diop ak ñi mu àndal cent cinquante mille soxna maam Faty Thiam ak ñi mu àndal ñoom ñëpp ñu ngi dëkkee Madiyaana première garage cent cinquante mille sëñ Balla Mbooj ak ñi mu àndal Touba Jannatu cent cinquante mille soxna Assou Sall Fall Daaru Xudoos cent cinquante mille soxna maam Boussa Guèye tali bu bees cent cinquante mille soxna Faty Guèye ak ñi mu àndal Ndamaatu cent cinquante mille sëñ Ibrahima Ba Touba Mosquée cent cinquante mille soxna Woli Ñang ak ñi ma àndal Touba Tawféex cent cinquante mille soxna Mati Gaye Mbusoobe cent cinquante mille sëñ Sidi Bousso Touba Mosquée cent cinquante deux mille soxna faatu Ly ak ñi mu àndal Touba Xayra deux cent soixante cinq mille soxna Xaddi Mbow Daaru Xudoos ak ñi mu àndal cent soixante cinq mille sëñ Alioune Badara Fall Ndindi sëñ Fallou cent soixante quinze mille soxna Mbenka ak ñi mu àndal Touba Tawféex cent quatre-vingt mille sëñ Modou Ndiaye ak ñi mu àndal Touba Thiawéen cent quatre-vingt-un mille sëñ Xaadim Silla ak ñi mu àndal cent quatre-vingt-cinq mille Daaru Manaan soxna Ndey Diop Ndamatu ak ñi mu àndal cent quatre-vingt-huit mille soxna Maam Marème Cissé tali bu bees ak ñi mu àndal cent quatre-vingt-dix mille soxna Ajjuma Puy nit ñi ak ñi mu àndal cent quatre-vingt-dix mille sëñ sëriñ Kàbbu Kebe ak ñi mu àndal Touba Jam Dial cent quatre vingt mille Soxna Ndey Bey ak ñu mu àndal Mbusoobe cent quatre-vingt-douze mille sëñ Cheikh Dem ak ñi mu àndal Suba Sam cent quatre-vingt-dix-sept mille Soxna Awa Diop Touba Daaru Fall ak ñi mu àndal deux cent mille Soxna sëñ Alaaji Fall ak euh, ñi mu àndal Mbusoobe deux cent mille Soxna Mambal Sëriñ Mambal la Mbàkke quartier Sëriñ Balla Coro ak waa këram deux cent mille soxna Ndeye Aaj ak ñi ma àndal jànnatul firdawsi deux cent mille soxna Xadi Gay soxna Ami Lo Daaru Marnaan deux cent mille soxna Xadi Cuun ak ñi mu àndal kaw Kawsara deux cent mille sëñ du Diaw euh, sëñ Ngañ Sarr Touba Ndindi deux cent mille soxna Ngone Ndoye ak ñi mu àndal Guy bind deux cent mille soxna Adda Ndiaye waa Kër Ñang ak ñi mu àndal deux cent mille sëñ Ousseynou Ndiaye Touba deux cent mille sëñ Djibit Ten Darul Marnaan deux cent mille sëñ sëñ Cheikh Sarr Touba deux cent mille sëñ Xaadim Ñang kuréel Matlabu Chifa Touba Mbuska deux cent mille sëriñ Mouhamadou Moutada Mbayke Touba Bal deux cent mille sëriñ Moutada Sarr association Ànd Taxawu Touba Touba Njaareel Njaareem deux cent mille sëriñ Nar Thiam teenu Maam Cheikh ak ñi mu àndal deux cent mille Serigne Ousseynou Mbaye Touba Ndindi deux cent mille soxna Ami Sadi Touba Forage Baylaat ak ñi mu àndal deux mille soxna Ami Wade mbootaayu Mam jaara Touba Sam Jaxate deux cent soxna Daba Fall ak ñi mu àndal Touba Ngiraneen deux cent soxna Fat Talla Ndiaye Daaru Mannaan deux soxna Mati Mara soxna Fati Mara Touba Daaru Tanzil deux soxna Xari Kebe Touba Ndamatu 200000 soxna Ndey Thiam Touba Sam Jaxate 200000 soxna Ndiaye Guèye Tanu Maam Cheikh 200000 Serigne Issa Diouf soxna Thiaye Ba Dieng Touba Ndiarème 200000 soxna Cekka Diagne Touba Xayra 200000 soxna Ndey Binta Dieng Touba deux 2 200000 soxna Mayka ak ñi mu àndal Touba Mosquée 200000. soxna Mayka moom som jili ak ñi mu àndal Touba mosquée deux cent mille soxna Awagé ak ñi mu àndal chantier Darou Salam deux cent mille soxna Awagé association de retrait Touba Xayra deux cent mille Serigne Saliou Ka ak ñi mu àndal Touba Darou Karim deux cent deux mille Touba Serigne Saliou ak ñi mu àndal Touba Thiawène deux cent mille soxna Dégène Bey ak ñi mu àndal Touba daaru Karim deux cent deux mille soxna Aïda Fall ak ñi mu àndal Ndamaatu deux cent quatre mille soxna Fatika ak ñi mu àndal Touba deux cent quatre mille soxna Awa Guèye ak ñi mu àndal Touba Darul naan deux cent quatre mille soxna Khoudia Ndiaye Touba Darul naan ak ñi mu àndal deux cent cinq mille sëñ Abdoul Ahad Loum ak ñi mu àndal deux cent neuf cinq cent mille deux cent neuf mille cinq cent hmm? soxna Faatuloo ak ñi mu àndal Touba Sexaw ga deux cent dix mille soxna Ndaak Diouf euh, Touba bu Tawfeex Bousso ak ñi mu àndal deux cent quatorze mille soxna Baba sëñ Baba Dieng ak ñi mu àndal Daarul Minan deux deux cent quinze mil soxna Ami Sylla ak ji mu àndal Touba Jannatu 218000 soxna Ami Thiaw ak ñi mu àndal Touba Mbusoobe quartier Modou Fall 220000. soxna Aram Dieng ak ñi mu àndal yoonu daaru deux cent vingt mille soxna faatu Dieng ak ñi mu àndal HLM deux cent vingt mille soxna Ndeye Mbaye Touba Darul Manaan ak ñi mu àndal deux cent vingt et soxna Mame Awa Mbacké Darou Khoudoss ak ñi mu àndal deux cent vingt quatre mille yi soxna Wali Diouf Tambédou Touba Darul Mannaan ak ñi mu àndal deux cent vingt cinq mille Serigne Moussa Niang ak ñi mu àndal xayra de deux cent vingt huit mille soxna Astou Lay ak ñi mu àndal euh, Touba Sam marché bu bees deux cent vingt huit mille